wax ju yiw ca Furs muy Perse bu yàgg ga dafa am benn buur bu fa nekkoon bu mas a gént bi mu géntee nag mu dajale euh, firikati gént yëpp ñu ñëw kenn ki njëkk dugg mu laaj ko wax ko li gént bi mu ko ko nettalee ba pare mu ne ko fii yow de xaw ma foo jëm waa ji tiit ne ko lan ne ko yow de sa njaboot gépp dinañ dee bala fi nga ne dum waa ji jaaxle lool ne ko amu ci benn ne ko déedéet buur bi rek ñu woo keneen kooku ñëw mu nettali ko gént gi mu ne koo santal yàlla mu ne ko sant yàlla ne ko waaw lu mu ne ko ndax yow de ñi nga bokkal kenn la ci gën a gudd fan ndax ñaari wax yi wute waaye waxin wi mooy li nga xam ne fa la ñu nit ñi di rawante mu waxaatit ne képp kuy naw boppam na jàpp ne ña koy xarab ñooy ëpp ña koy gërëm ña koy yàq ñooy ëpp ña koy nawlu nee sarax garab la boo xam ne maanaam médicament buy tax a sotti dina tax itam a sotti moom sarax ku ko fonk rek da sotti di nga sotti nee na jëfi jaam ñi fii ci àddina mooy jëmmal suñu mujj ca àllaaxira ni ñu yàlla def ci àddina jox ñu ko ci teraanga suñ ko jariñoo te mu doon lu dëggu amut ay nax nee na bu àllaaxira ñu sañ a am yaakaar ak rafet njort ci lañ koy fekk te mu bañ a doon nag topp njort ndax firiloo woon nañ ko Serigne Touba rafet njort ak topp njort mu ne rafet njort mooy def li yàlla digle la mu tere ñu bàyyi ko ba noppi nag sañ a yaakaar yaakaar joojee ñuy yaakaar njort lu rafet lañ koy tudd waaye nee na su fekkee li yàlla digle defuñ ko li mu tere it bàyyiwuñu ko nee na su boobaa loolu topp njort lay tudd waaye doonatul li ñuy wax rafet njort mu waxaatit ne ci doomu aadama ak li am solo ci moom te mooy ruu gi ak jëf yu baax yi muy jëf waaye xott jëmm ji moom ñàkk bu ñàkk solo ak ñàkk bu ci dara ñàkk a mën a xet ndax tey dégg rek ku mu jam fu mu jam mu ne foofa mooy nit bu bëñ di metti mu ne bëtëy nit bu bëñ di metti ñu ne bëñëy nit bu loxo di metti ñu ne nit bu tànk di metti ñu ne tànkay nit noonu jëm yi nit di mel nag loolu lañu digal nun umma islaam bépp ñu mel noonu ba fu ci dara rëtte nu gaaw defar ko waaye bu nu toog rek kenn ku nekk di dal ci kaw mbokkam su ko defee noon ya moom al kufru millatun waahida ñoom fexe nañ ba luñ mën a wute it ànd xeex jullit moom ñoo ko bokkule kon nu nit nañ fexe ba du nu xeex ci sunu biir bañ a naw sunu bopp jàpp ne lépp mën nañ ko waaye nu xam ne kat bu doon ab tabax la kii mooy brique bi kee brique la am na ay joint li koy takkale nekk ci diggante bi neena na nit kooku ci Grèce doomu mu lay gise bu xoolee ba jàpp ne mooy gis nee na lu ko yàlla abal rek la nee na buy wax ci yàpp lay waxe muy làmmiñ bi nee na buy dégg